monsieur le président de la république euh, ñaanoon na acteurs yi nga xam ne euh, li ñuy wax euh, wàllu microfinance seq nañ ko ñu mën a gën a waxtaan bi ci surtout ci ci fan yu bëri ndax ñëpp xam nañ secteur microfinance ban solo la am ci inclusion mais bëggoon na ñu gën a xóotal waxtaan bi surtout lu jëm ci euh, taux d'intérêt yi nga xamné ne ñi ngi koy appliquer ci walu financement yi nga xamné nit ñi ñi ngi koy dem wuti ci système financier décentralisé lolu nak euh, dañuy sante bu baax acteurs yi nga xamné ñoo seq secteur bi ndax lu romb banque centrale ak ministère euh, des finances bi nga xamné ci walu réglementation ak qualité service yoy ñuy joxé ñom ñoo ci nekk BCEAO nekk et aussi sur la réglementation communautaire dañuy avons bu baax taxawaay bi nga xam association professionnelle système financier décentralisé bi am ndax non seulement dañu am wàll am solo bu ñuy ci inclusion mais dañu wane une ouverture ci euh, euh, en tout cas euh, mbébét bobu nga xamné président de la république sàkk pour ñu sékk waxtaan donc tay ginnaaw bi ñu rafetloo téway ñoo ñëpp

comprendre dafa jóge ci SFD kon faw mu doon waxtaan bo xamné dañ koy dañuy génne tout ce qui est passion ci waxtaan bi ñu wax effectivement secteur bi ni mu mel nit ñi koy jëfandikoo ni ko dundé mais également ñu xool bu baax a baax li nga xam ne dina permettre ñiy offrir service boobu ñu mën a nekk ci tànk yoo xam ne dina répondre à ce que li population bi kon tey dañuy jàpp ne waxtaan bu tàmbali la du mën a yem diggante tey ak suba